waaw waaw jërë ma sël tir sër la tir sër la def waaw ku des <laughs> asalaamaaleykum sama gars yi déggee naa leen sama waa AIC ci loo leen ne j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax a baax man maa ngi si jàmm ma ñaanal laa leen yàlla leen yàlla defal sutura xéwal ak xaalis bu bëree bëri sama gars yi dama waxoon vendredi samedi dimanche kese laay dugal vidéo mais bété bété démb bi mënu ma cee bañ a def vidéo su ma ci deful vidéo léegi-léegi non damaa nafeq waaye jee na ma tàll c'est sama gars yi balaa vidéo commencé emee leen vidéo bi ngeen abonné bu fekkee yaa ngi may seetaan te abonné woo te nga abonné looy xaar nga activé notification bi ndax Fallou xoolal sama waa ASC dañuy yëngal rek bu leen fàtte yéen Géo Rest bet sama promo code 21 bi Dieynaba taal jur ñi nga xamante ni Dieynaba taal rek lañuy topp ñu commencé ñu seetaan Dieynaba taal barke alxuraan Dieynaba taal rek Dieynaba lan la yow maam Dior lan la la <laughs> waaw waaw. naaj. booy. yaay. waaw yaa ngi toog. ceeb bi bi mu ceeb kañ macha allah. yaay. man maa togg ceeb naa ni yow. déglu alkaali lépp moom la alkaali alkaali. bii yëpp alkaali koy ah Dieynaba yow laay waxal Dieynaba dama ne ndax yow danga maa yëpp wala danga mami. miin. moo tay de. togg rek ngay def. waaw dégg ko Dieynaba yaa mën togg. déglu leen ay alkaali sama waañ yang ne la bu fa dugg nga yow nga oh, osé kan nga ne dag xam nga boo xëyee ya, takk sa sër rek naroo jàmm. sër ba waaw bu sëree rek. gën a pangal la nga maa la gën gën laa toog. waaw man nga ci yem ju sa déglu alkaali yéen. mënta ne. dama ne la sama waañ bi bu ci teggatu sa tànk. Maodo Mbaye la. yow fayul. fayul. fayul. da nga fayu de. kaay yaa ngi doon encore loolu. kaay. nga fay de. maa ngi ñëw ji ma tax. dégg nga. maanaam coowal gars yi am na. yéen. fayu rek. fayu rek. ir. jet ak lépp. waaw waaw jërëma sël fayu fayu fayu mbéj fayu rek mbéj fayu rek ay man maa kontaan ci jërëma taal démb seet teet teet teet sama gars yi ku kontaan ci ma taal rek bindal ma ko ci commentaire yi non maa kontaan ma taal damay xalaat quoi tamit lii bu doon euh, sama yaay lañ ko def bu doon man sama yaay lañ ko mais damay xalaat sama sama sama sama sama yaay du def lii sama yaay du door sama jabar non non sama yaay du doon sama jabar sama yaay du doon sama jabar léegi dama leen laaj ba xam sumbulu il mérite ça wala wala mérité wala mérité man ci man sumbulu dafa mérité lii parce que mënul toog à chaque fois muy toroxal Jeynaba di ko wax lu nekk di ko dóor di ko def lu nekk nañ waxante dëgg lan moo war a nekk réaction Doudou épisode bii di ñëw lan moo war a nekk réaction Doudou Doudou day fase jabar ji wala après affaire yi jaxasoo na daal lan moo mais après man bi ma seetaanee seetaan xoolat euh, bété bété dama ne non doonu mi du fase jabar ji té luñ ci si dina xass jar xol leen séquence bi ni bi bi bi bi raxam bi nan ko sa jabar ji mo tax xawma lan mu ko sama yaay na dé sama yaay na dé affaire yoy non xol leen xol leen séquence bi ko sonal yaa ngi di mu nan ko dom ram bi. yaay yaay. Amina. sama yaay na dee. ko sama yaay na kon sama xel dal ci doolu parce que tam duudu bul xalaat Dieye Daba Tall ni mu mel forme bi li ko yàlla dénk ni mu moolee ni mu rafet rafetee mais su mu lu tamit wax na lu am solo <laughs> nee na bu Dieye Daba Tall woo doo bi rek jàmmam jeex bu ma xoolee bi muy métti raqam <laughs> sër la woon <laughs> nañu xool. bi yaa bu fàtte sër bi. mu koy mbéj sër bi.

da nga yabaate mënoo fekk ma sama ñankatan nga kan dem tuur ndox mi dajal yabaate nga ñankatan xaw ma ñank du moo fuu tir seur la def waaw ku des kan ngeen bëgg jeynaba taal mbéjal ñu ko ah jeynaba yàlla la yàlla fay waay ay wala ma kontaan vidéo nag force ma leen laaj yéen ya, tamit bu fekkoon seen jabar dafa mbét seen yaay <laughs> nan ngeen di ah parce que lii moom tamit ci yaay ji la yaay ji moo comporté jéena ba taal dafa dafa dafa sonn ñëpp wax nañ ko ñëpp wax nañ ko euh, euh, boo xoolee am na benn vidéo boo xamante ne mi ngi circulé ci nekk bi am na benn gaale ñuy seetaan euh, série bi bi jéena ba taal mbéjee sumbulu téer ñëpp a yuuxu naa lañ ko woon yaa ma gën a xam kon sama gars yi amee leen vidéo bi ba vendredi wala ba samedi ma dugalal leen vidéo tey moom mënu ma woon bañ dugal vidéo bégee sama waa ASC kontaan naa ci yéen de ni ngeen di aimé di partage sama gars yi maa ngi kii I was busy I have to I have to go to to go something dem li jënti money si kanam